lan bikum njëgu dund gu cher gi léegi tey mu wàññeeku allah jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ak njaay ak industrie Serigne Gueye moo ko wax si di quotidien yeggañu ko fa dalal xelu sénégalais yi ne état bi mu ngi liggéey liggéey bu xam solo séq ko ak patronat bi jaaykatu mbur yi ñiy jënd dund bitim réew di ko andi ak ñiy jël dund di ko yóbbu bitim réew liggéey bu am solo boobu nag du yàgg dara sénégalais danañ gis ne njëgu dund gi nga xamante ne mooy li sénégalais gën gën a soxla fañ koy wàññi loolu baax na leneen lu baax di xibaar bu neex mooy ne pétrole Sénégal bi moom itamit du yàgg dara ay fan yu néew ci la ñu génnee bari ko pétrole yu njëkk ci suñ pétrole bi su ko defee ñu tàmbalee jaay njiital Petrosen Thierno Seydou Ly moo ko wax ca Paris nee na wàq pétrole bi liggéey bi fi mu toll nii dem na ba 97 pour cent indépendant yéen a kaay fa ñu koo yeggee Le Soleil yéen a kaay moom fa ñoo yeggee biis yu rafet yu gaaw yi xam ne fa ñoo tàmbalee daw Dakar boobaak léegi benn ay bés rek la ñaat téeméeri junney doomu aadama nag oto yóbboogum nañ leen te 121 biis ñoo war ndakaaru Sud Quotidien moom it fa xëy di ñu xamal ne état bi xaalis bi mu waroon a jox opérateur privé yi ci wàllu gerte gi mooy bor boobu nga xam ne nguur ak Macky Sall gi moo leen ko yoroloon te Ousmane Sonko waxoon na fañ leen koy fay du yàgg yéen a kaay bi nee na Sonko ak état bi la ñu waxoon def nañ ko de fii ñuy wax ak yéen fanweer ak juróom-ñaari milliards fayagum nañ ko opérateur yooyu yor yor yéen kaay ne suñu waxantee dëgg mbayum ren mi li ci état bi def moo gën téeméeri junne yoon li fi nguur Macky Sall gi defoon ci mi le mandat yéen a kaay ne bés bi ñu jël ci solo fañ a jël matuwaay dëgg nag mooy Air Sénégal xam nga temps yële xam na seen avion boo xam ne moteur ba fa tàkkoon nag am ay jafe-jafe accident ba léegi nag li ci garaaw mooy Air Sénégal fa luyee ab avion mu dem ba aéroport bu New York Amérique am fa ay jafe-jafe ci wàllu technique ba sax walu altine bi fañ ko neenal le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal te loolu baaxut la nen lu baaxut te bëri lool ca diwaanu Kaffrine mooy sàccum jur gu takkarnaase ba tax askano fa ñu yuuxu wàllu leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Mimi Touré fa wax ne moom xaarut dara ci coalition Jomaay Fay bi bi mu àndatoon ginnaaw buñ jëlee ndam li vox populi fa xëy di àddu ci tolluwaayu Amadou Ba pour nekk njiitu opposition bi fay laaj ñàkkante de xeex ndax fa koy def ak déet loolu mooy laaj bi yéen kaay bi na diggante daal jafe-jafe ya ko waa APR tegal ak martu bi nguur gu bes gi xàcc jëmale ci moom naka la ci war a doxalee Oumar Sow na faa di wax li war a def mooy ne fa war a génn APR moom Amadou Ba taxawal parti boppam Suzanne Camara ne Amadou Ba fa war a gëm boppam te xam ne moom ay fañ leen cee nar a def xarum sarax maanaam ñoom lañ nar a jàpp daal tëj kaso waaye ministre yeeg ponkal yi nga xam ne lekk na ñoom ba moytu fa ñu rëcc raw li rawut enquête yéen mooy relation jëflante diggante Sénégal ak France fa koo xayma ba wax ñu ne ñaar ak juróom-ñaar fukk ci ay entreprise français ñu ngi fii Sénégal ñi jël nag ci Sénégal yi ñuy liggéey mat nañ fanweeri junne ba tax Thierno Souleymane Diop ne jëflante Sénégal ak France nag fa wax na fa am mbégte ci Sonko dalal ko premier ministre te fa ñoo waxtaanee lépp ngir jëflante bu rafet diggante Sénégal ak France leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne xiiroo ŋaayoo ñàkkante bi doxoon diggante APR ak Pastef fa mel ni fa dikkaat de a ah, yow fa ngay xool baa jaxate mii ñu jàpp ndax wax kàddu yi ñaaw ak wax xibaar yoo xam ne amul benn firnde jëmale ko ci usmaan Sonko njiitu jëwriñ yi bi ko tegee loxo ay kàngam ponkalu APR yu bëri fa ñoo dem ca buntu dik wane ak jàppale ak baa jaxate info yéen kaay ko xamal ah, yow gàttal bokk na ña fa demoon Pape Malick Ndour Abdou Mbow Pape Gorgui Ndong Seydou Guèye Isaaqa Diop ak Moustapha Diakhaté ba ci Oumar Youm sax ma ngay wax jàppaleen ak Bah Diakhaté di sàkku ci Sonko la mu digoon sénégalais yi mu def ko te mooy criminaliser mbiru góor jigéen source a yéen a kaay ne faaleen di wax Bah Diakhaté bi ko jàppee lan la wax enquêteur ya bi ñu ko laajee wàllu suuf bi nga tuumal Bassirou Diomaye Faye faleen a wax ne faa waxoon ne Cheikh Diba moo ko jaay Bassirou Diomaye Faye waaye loolu bi ma koy wax booba Diomaye nekkagul président ñu ne ko waa léegi li nga tuumal colonel Kébé nag ci mbiru góor jigéen mu ne fa mel ni daal fa xam ab boo xam ne moo ko daanoon xamoon ci wàllu wi ni mel ñu ne ko waa léegi li nga wax Ousmane Sonko premier ministre ci wàllu terrain ba bi mu xamoon mujj koo jaay mu ne loolu fa mel ni xam na daal ab document bu ci wax loolu enquête bu njëkk bi ci la waxee loolu léegi biñ koy yóbbuwaate nag di ko enquêtaat ñaareelu audition bi biñ ne ko li nga waxoon lépp nag fa xam luñ ciy laaj pour nga ànd ci ay tonte ak ay firnde moo leen léegi waxatuma tontootuma te joxewuma benn firnde ndax waxoon Ousmane moom ca kanam enquête ka xam nga lu mu leen wax damaa juum faay jéggalu li ma wax yëpp awma ci benn firnde baxal leen ma le quotidien yéen a kaay mel ni ku naan leen hée yéen ñaar ñooñu tiisuma leen baaw de baa jaxate ak imam ndaw boobu xam nga li ñuy wax instruction fa jëm de fañ leen di jàllale ca kasogat vox populi ne waa amnistie nag ñoom Seydi Gassama fa ñoo wax ne tuumal nit lu du dëgg ak wax loo amut firnde diffamation a a a APR daal ak Pastef ñàkkante ba moom fi mu a ak Didier Badji loolu moom lu baax la fañ cee war a jublu yëf leer su fekkee fañ faatu ñu xam ñan ñoo leen faat ba tey tribune yéenekaay fa xamal na xam ne téeméer ak juróom fukki sénégalais yoo xam ne fa ñoo a dem Barça wala Barsàq fa ñoo mujj nag des ca xàllab ñàmme ba Niger ña ngay sàkk ci président Diomaye mu dimbale leen leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne mbindaan bi fi jàppoon nenn tuuti bu góor bi amoon fukki weer ak benn ba pare doon jéem a def yëfu saay-saay moo nenn tuuti ba te patron ba filmé woon ko bañ jàppoon xale bu jigéen bu bon boobu ñuy wax lèvre rouge moom la jël di ko def ci seen xawra yi yéen a kaay loolu nag lu bon la ci wér gi yaramu góor fay xande ay feebar ci sa xawra yi fay dem sax ba dootoo nekkati góor impuissance sexuelle <laughs> waa ma ne léegi xale jigéen yi fa ñoo génne ay xeesal yu bees yoo xam ne baaxul santu yàlla fa ñuy rocci xolli seen yaram yi ba mu weex tal mu mën laa jural cancer ak feebar yu garaaw yeneen xale jigéen yi moom di jël ay pikir di ko pikir gi ponkal rëy léegi nag ñoo ci wàll yaan si ñoom di jël ay yu di ko jëfandikoo ngóora jarut yenn